compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko let's go. def ndànk rek <laughs> bu mu yàqamte rek affaire yi moom saa yi seen doo sama jarul buuxante ko am. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tey mercredi mars ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ñu koy faral di defee andi leen journalu record andi leen journalu La Tribune mu mel tey lamb ci saf na ci sàpp waaye nag dañ ciy ànd ak ñi ñu ci doon àndal saa su ne ginnaaw bu ma nuyoo Boucar Ndour ba pare Boucar maa ngi lay maa ngi lay di la ziar di nuyu mbokku Sénégal yëpp rawatina ko waxee rek projet d'habitat social bi nga xam ne coopérative d'habitat émergent social moo ko mettre en place. ñu bokk ci askan wi nga xamante ne. ñoo gën a néew doole. ci population sénégalaise. ndax askan wi dañoo sonn. dund plus de 40 ans ci location. ñaan nga yàlla am kër. am sa njaboot amoo foo dëkk dafa metti. li ma njëkk a dégg ci coopérative bi mooy ni jaaykatu gerte beeg. situation boo mën a am rek war nga mën a am kër. xanaa bëgg kër rek moo ma ci dugal. sonn nañ loolu te bëgg kër. luyaas bi sonal nañu. dërëmu jaaykatu gerte caaf yi moo ci dugg. jaaykatu jën bi socc bi ak uppukaay bi. moo tax nag ñu jàkkaarloog yow ni di la woo Macky la ñu yaakaar dimbale ñu ci coopérative ndax néew ju doole am kër. am naa yaakaar bu baax ni kër yi lañ ci jot soobee yàlla. waaw day dem incha allah. sàmm sa téléphone application bi gën wóor application bi gën a fiable pour protéger sa ay données sa ay contacts sa ay photo vidéo heure boo tegee sa téléphone di ko chargé nit bu ko déverrouiller automatiquement daf koy di photo yónnee photo bi ci sa mail bu sàccee sa téléphone wala sa téléphone réer abal téléphone nga yónnee message ci sa numéro de téléphone ñu daldi lay yónnee localisation am di koy def contrôle à distance daldi lay déclencher sirène bi muy loo xamante ne nii nag boo ci bëggee am ay yeneen i leeral nag ñuy woo ci 77 149 04 08 le prix est fixé à 1000 francs CFA seulement. noonu la demee leer na nañ ñi ni Banjul ak ay sondalam ñu ñëw ci journal sunu làmb journal sunu làmb nag tey Alioune Sarr par Alioune Sarr père Alioune Sarr patron moom lañ xëy fësal ma ngay wax nag bay joxañ baaraam bi ndekete yoo gars yi li ñuy wax yëpp Alioune Sarr yëgalu ko yaramam on s'en fout la wax bu dee baat boobu teggi na na moom daal xam nga lu mu defa Boucar joxañ na baaraam instant bi yëkkati ñuy xaar mu wax maanaam muy négocier waaye Alioune Sarr bi dafa xëpp ci affaire yi kaane nee na dañ dinañ tontu ñiy wax ñiy wax na xam nga lan la leen tuddee ay weñ ak ay yoo ay weñ ak yoo daal moom daal jàpp na ne ñooñu la jàppee ñi nga xamante ne maanaam ñoo koy tànqal ñoo ñoo ñoo koy tànqal parce que loolu la wax les mouches xam nga elle est elle est ku ñu pique loolu la jàppee maanaam coow li am ak li ko nit ñi di waag li ko nit ñi di décrier depuis lors si réseaux sociaux yëpp moom daal nee na ay ay ay yoo moom talagu leen coronavirus bi la tal. coronavirus bi la tal waaye nag nit ñi lay tudd ay yokki weñ nag bu garno ah en tout cas doy na waar daal mais eh, daal mais daal man moom bon j'attendais de sa part xam nga rek un peu plus de de considération pour au moins sax xam nga rek problème bi parce que tey problème am na ni ñu ko mën a waxee rek la euh, gaa am na feebar bu si dugg xëy na moo moo tempéré moo wàññi coow loolu noonu waaye coow loolu noonu Lamine mënoon na mënoon na jéggi wala mënoon na ëpp loxo kon yaakaar naa ne yoon la moom Alioune Sarr waaye yoon la moom ministre bi tamit parce que ministre bi tamit Lamine wax na ci waaye li dinañ ci ñëw bi wax na ci waaye dinañ ci ñëw ci biir journal bi waaye daal ak lu mën a xew radiation bi nga xamante ne am na ci Sitor ak arbitre yi nga xamante ne dañoo nekk de grève loolu moom Alioune Sarr mi nga xamante ne mooy président CNG moom dafa mel ni yëgaru ko yaram yëgalu ko yaramam yëgalu ko xolam yëgalu ko tamit ay noppam waaye Matar Ba mi nga xamante ne moom moo jiite CNG bi moom tamit wax na ci li nga xamante ne moom mooy xalaatam comme ni nga ko waxee tamit nee na su fekkee dañoo dañoo aj ay arbitre dañ leen a bi nekkul moo war a régler problème boobu. nekkul moo war a régler problème boobu noonu dafa jàpp ne yoonam nekku si depuis gis nañ nit ñi maanaam di ko interpeller ngir mu dox si tànk jàmm ngir mu def ngir mu def si médiation waaye dafa mel ne nag moom ministre bi moom li mu xam si coow loolu noonu. loolu yëpp mooy manque de considération rek noonu lañ ko mën a gisee parce nag mooy li may wax ni suba mën naa soxla Modou Lo mën nay def caravane soxla ci rëg-rëg su fekkee nag mbëri ànd nañ xeex seen intérêt ministre bi dana fexee xool ñii lan moo leen metti mu faj ko parce que lii bu ne yoonam nekku ci te mu jiite Alioune Sarr jiite tey benn Gris Bordeaux Gris Bordeaux sax su ko neexee tey mu xëyoon xëy ni bàyyi naa bëre bu su boobaa ministre bi Gris Bordeaux concerné tu ko mais comme mi ngi ci sport bi rek moom la président dénk li nga xamante ne mooy tàggat yaram ci réew mi mais arbitre yi ak moom war na cee mën a wax médiation yaakaar naa war naa mën a am ci diggante CNG ak arbitre yi moom tamit mooy ki ko war a doon. war na cee mën a dox ginnaaw bi nga xamante la yaakaar naa ne ministre moo ko nommé moom loolu tam mooy wone rek di maanaam que ne les arbitres sont laissés à eux-mêmes si jamono ji moom leur sort moom xam nga entre leurs bras tey ñoom ñoo war a mën a jaayante li des ñàkkante ko am ngir am gain cause mbëri tamit ndax nu kasaalika ñoom tamit Lamine war a am seen xulaay bopp Lamine taxaw toog woote wante toog def table rase waxtaan trouver solution parce tey mbëri ak arbitre yi bu ñu ñëwoon Aliou tey ne lii lañ bëgg par force day am ministre bi mënu si dara Alioune Sarr mënu si dara Macky Sall sax mënu si dara parce tey ñoom ñoo ngànk làmb ji ñoom ñii ñooy bëri ñii ñooy arbitre CNG tey li liñ fi nekkee comme tey mën nañ comme ni ñu ko mën a waxee rek si gàttal tey dañ ñëw tey pour superviser dañ ñëw nag ba nangu affaire nag tey ba tëg mbër yeeg tëg arbitre yi loo xamante nii tey Lamine yéeniwul maanaa tey ku ko dégg Lamine sa xol day sa xol day jóg sax kon yaakaar naa ne loolu noonu moom jot na gars yi jóg si taxaw si man de vraiment coow li sax man instant bii man man Boucar Ndour daanaka man dama dama dama cee sonn man bu ma suñu tey lii ministre bi réglé ko Alioune Sarr réglé ko mbëri tamit ñu fexe toog réglé ko parce que mënuñu xëy chaque jour journal bi war ñu jox ay information que ni Balla Gaye am na combat wala Boy Niang am na combat wala Gris am na combat ñi ngi dox combat bi ñi ngi dox combat mais mais kañ nga gëj a gis ñu wax combat yoo xamante ne ñu ngi koy dox te pourtant am na combat yoo xamante ne ngi koy dox. am na combat yoo xamante ne ñu ngi koy dox man xam naa combat yoo xamante ne promoteur jubóo na ak benn mbër war a koo war a war koo wutal adversaire ak taw bu taxawee combat bu neex lay doon ko dina bokk ci combat yi gën a mag saison bi mais journal suñu làmb wala journal record sax daanaka gëstootuñ loolu li ñuy gëstu instant bi mooy coow CNG ak arbitre coow ministre bi ak arbitre coow mbëri ak CNG. coow mbëri ak CNG mu mel ne nag Lamine CNG moom jamono ji moom lu ñu ko joxoon baaraamu tiimu tuuma bëri na lool lool lool lool ministre bi la ñu amoon yaakaar dégagé na ay ay kon nag pour man nag mbëri ak arbitre yi ak ñi ngànk làmb Lamine jot na nag ñu jël seen responsabilité parce que mënuñu wax ne maanaam làmb dinañ ko def fédération waaye làmb kese nga fi gis Lamine chaque jour muy am coowal boo xamante ni tey si diggante njiit bi la ak ñi wër làmb ji te loolu tamit yaakaar nit moom Lamine mënoo fi nekk bëgg a jiite benn maanaam à l'éternité sa giiru dund te loolu noonu mu nekk loo xamante ne moom moo ko Gaston Mbengue li mu wax barki démb que Alioune bu bàyyi CNG làmb ji dina yàqu loolu man pour man tey tax gis-gisam la wax gis-gisam la wax CNG tey Alioune Sarr mun maanaam ëppul xel Sénégal Alioune Sarr gënul dund làmb sénégalais yi amul saal Alioune Sarr gënul xam li ne ci làmb sénégalais yi tey supposons tey un sénégalais la am tey un xaadim un xaadim Samba tey mën na mën na war a mën a gérer CNG supposons ay proposition la rek quoi mhm. un Bécaye Mbaye un keneen ak keneen un Moustapha Gueye un Tyson un Yékini maanaam affaire de leadership la rek ak CNG moom Lamine yaakaaruma ne laaj nañ jàng ab dund la loo dund la comme ku dund làmb pour man war ak expérience la la ak expérience la mel loolu yaakaar naa ne war ku mel noonu war na mën a gérer noonu hmm. seen arbitre dañuy grève bi ah, ñoom seen arbitre même samedi bi passé nii yeneen mbër ay ancien couloir laa gis ñu jox leen ñuy arbitré Maysa Ndiaye bi nga xamante ne tey mooy président CRG bi la moom laa fekk si table bi muy yore ay licence di liggéey kon ça veut dire maanaam pour man loolu trouver terrain d'entente moo gën moo gën nga xamante ne ay patron la ñoon dañ ñëw toog si tribune bi seetaan lamb ji di ñëw di seet lamb ji loolu mënta wéy ku mel ni Matar Ba tamit moom mi nga xamante ne mooy ministre bi dalal na président Alioune Sarr. dalal na président Alioune Sarr loolu la journal bi xam ci ay sources am yoo xamante daal mënut a firndeel lépp lépp à mais li muy xam mooy que daal ministre bi ak moom jot nañoo toog am nañu lu jot a wax li ma koy waxee rek maanaam man moom Lamine am naa certitude que ne maanaam Alioune ministre bi dara ump ko si Alioune di doxalee ak Alioune di di gérer CNG pour man daal ñu ñoo fi nekk di wax di sonn rek waaye ñoom ñaar moom maanaam li ñu tënk wala li ñuy li ñuy nañu ko ba pare. noonu la demee ak lu mën a xew daal coolool dañ ciy des ndax booy kayre ma nga xëy di moom tamit di wax Gaston ay dëggam gannaaw ba mu defee sorteem nee na nag moom Gaston nekkul moom mooy tax kii kii tax ñu teg seen i ngànnaay ci suuf du moom moo leen di bàyyiloo seen i xeex du moom moo leen di bàyyiloo seen ñaxtu. pourtant Lamine moom mi lim tëf si làmb lim jot a dund si làmb moom waroon na mën a gérer CNG waroon na mën a taxaw laaj CNG ñu jox ko ko mu gérer ko si si si si maanaam si làmb bu Gaston bi kii nga xamante moom moom jamono ji moom na dem waaw neen neen neen moo Gaston Mbengue maanaam moom moo waroon njëkk a demandé que ne mm-hmm. na Alioune dem kon warul ñëw toogaat fii nii di di di di ko jéem a défendre CNG amatuñu solution pour sortir pour génne làmb ci crise waaw CNG moom jàpp na ne ñi fi nekk nii moom Lamine amatuñu solution pour génne làmb ci crise bi parce que crise u làmb nekk Lamine mu ngi bëgg a yàgg ñaari at a ngi nii yoo xamante ni làmb ji sooxal na lool lool lool lool combat yi pour pour combat bu mag taxaw problème la combat bu taxawee coow lu ne si juddu dagg mbër yi nag Lamine mel ni tuleeg màlle crise boobu noonu nag da doon ñëw waaye nag dafa am beneen bu ñëw yokk ci yore dolli ñeex maanaam lu ko yokk moo tax journal sunu làmb xëy na bind ci fësal Ama Baldé ak Modou Lo noonu la journalu record xëyee bind ci fësal euh, ki nga xamante ne mooy Tapha Tine Gris Bordeaux ak mu mel ni chômage VIP combat royal hypothéqué comme ni ko journal sunu làmb waxee

si yaakaar lool lool lool bu ne woon nit la mën nañ ne mu ngi sukuraat mhm. en tout cas daal làmb ji moom ren moom Lamine est-ce ba a xew doy na di joow lii nag combat am ak Yékini la woon mu nekk combat bu doy doy waar waaye nag tey waxuñu ci waxu làmb presque dañ ko laaj ci jaar-jaaram ci ci ci dundam ak yeneen ak yeneen mu mel ne dafa moom tey xëy na génnee album souvenir. xëy na génne album souvenir Lamine génne li na ci moom fi dalee baa fi duggee école Lamine ba fi bàyyee ses débuts dans l'arène waaye tamit comme ni ñu ko waxee rek comme suñu actualité moom maanaam wax na tamit si làmb si situation làmb jamono jii nii wax na ba si CNG bi lamin am na lu mu ci wax roi des arènes bi tamit jàpp na ne CNG mënut a organiser maanaam tournoi roi des arènes loolu jàpp na ne état bi moo mën a génnee ay fonds génnee financé nee na tamit maanaam du doon du doon ay ay ay mbër mais les meilleurs lutteurs moom la jàpp ne ñoom la war a mën a select defal leen tournoi boobu noonu si Lamine qui est le meilleur qui est le moo tax journal sunu journalu record tamit noonu la ko xëyee rek ñu mel ni ñoom ñaar ñoo bokk ay gis-gis rek mu mel ni coup d'arrêt wax pour Balla Gaye 2 Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro moom moom a doon mu nar a doon double si ñoom moo tax xaftaan yi moom Lamine nañ ko gën a rangé waat rek gën a weeraat ngemb yi. Ama Baldé et Modou Lô dans le Ama Baldé et Modou Lamine dans le maanaam que ne ba xam ndax dina amam du am waaye daal ni ma koy waxee rek nañ si rafet njort di yàlla lik ni ko laa yàlla génne ko si jàmm ak seen bët Reug Reug moom tamit daf de saison bi ñu ngi doon proposé ay promo ay combat yoo xamante ne pour man bu ko jëloon waaw pour man bu ko jëloon kon loolu naroon na bokk ci li sauver saison parce que Lamine benn mbër bu am combat mën na influencer yeneen mbër yu ñu jël yeneen combat bëre. Ama Baldé Ama Baldé Tapha Tine bi kay imaginer ñu bëri woon février lañ leen waxoon. février avant après février lañ wax nañ arrêté heure bi kon tàqalikoo nañ heure bi tàqalikoo nañ heure bi waroon na mën a amat beneen combat bëri ko fin de saison yeneen mbër tamit Lamine naroon na leen motiver ñu jël yeneen combat bëri kon des fois Lamine waaw des fois motiver promoteur yi motiver mbër kon des fois benn action booy def Lamine muy lu baax wala muy lu positif wala lu négatif Lamine maanaam day am conséquences yi muy def day am ay répercussions yi muy def kon bépp décision bu di jël si àdduna rek muy mbër rek muy yeneen ak yéen muy promoteur war na si xoolaat loolu noonu war na si jàngat loolu war nañ si jàngat loolu ñu jeexal ko ak journal La Tribune comme ni ñu leen ko waxee woon moom tamit Modou Lo ak Ama Baldé xëy fësal samp ab laaj di laaj ndax combat boobu du choc bi nga xamante ne mooy sauvé fin saison bi waaw ndax choc bi mu nga man moo war moo naroon sauvé saison bi parce que saison bi moom Lamine yàqu woon na ba pare combat royal bi li gars yi fexe jaante ba taxawal ko nag moom la journal bi samp ba xam ndax. ndax ndax ndax dina sauver saison bi. am yaakaar am ngi ci am ñu ñi ñaa ci am yaakaar parce que ñi gis publicité te yaakaar naa ne moom Lamine maanaam ñi ko tëgg yàgg nañ tëgg nañ bés bu ne tëgg bés bu dul bési junne tëgg nañ ko yaakaar naa ne ñooñu Lamine bu ñu redoublé defool xar seen tànk tubay lépp war nañ ko mën a gérer Lamine ba combat bi am incha allah ak lu mën a xew daal taw ndox lu yomb yomb yomb yàlla suñu borom la bu kar ñu ngi nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp fu waaye mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen di bu baax di leen ziar di nuyu sénégalais yi nekk ci àdduna bi yëpp di leen ñaanal yàlla musal leen ci coronavirus bi di ñaan yàlla mu génnee ko ci àdduna bi yëpp bu mu dal kenn mbugal la rek yàlla na ko fi yàlla jëlee te incha allahu rabbi danañ dem ba di ko nettali incha allahu ñu ngi nuyu ñuy suivre le tv point com yëpp ñoom Abdou Bo Xarañ Lo Mame Balla Gaye Jiri Tarkinda di nuyu tamit groupe xew-xewu làmb ji ñoom Max Pape Demba Cheikh Bass borom Kër Massa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñooy groupe li tv tuuti yaay Sarr Omzo bu Garga Serigne Diour bu Osor ñu ngi koy nuyu di nuyu Ibrahima Khalil Xaadim Bamba caatuli tv moom tamit nekkati anniversaire am démb la woon xaw ma barki démb nekk ci affaire rek moo tax gisuñu ko ñu ngi koy ñaanal mu yàgg ko féete ay at yu baree baree baree bare di ko ñaanal jàmm di nuyu waa Gambie suñu père Idi Jon neen nag mi chaque jour bu demee xëy dem espoir FM di xaar Lutte TV ñu tegal leen revue de presse. père Idi Jon ñoo ngi lay bëgg di la ziar yow ak auditeurs Voice FM yëpp di jëmoo di de Babacar Sarr Mbirkilaan FM ngi leen di bëgg di Maam Waly Madou di ko ziar sama doomu Bokar Jon Lamine maa ngi koy bëggee di ko ziar bu baax a baax Lamine di bëggee sama gars yëpp waa Sandaga Lamine mhm. ñoom Lam Star ñoom ñoom Baye Gueye Cheikh Ndaw Touré Sport Bilal Bass Colobane Thierno nga moo di Badou ancien gloire bi koy nuyu di ko ziar mhm. di nuyu di nuyu gars yëpp ñoom Issa Lafou ñoom ñoom a Mbaye gars yëpp mafia bi si tor seen maa ngi leen bëgg Cissé Ngane borom lat menge lat menge ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ana sa waajur nekkoon Turquie nu mu tudd Ale borom Kër Massar sama jamono ji nag dafa xawoon a tawal waaye maa ngi ko ñaanal Lamine mu jóg si jàmm delluwaat ci liggéey bi mat parce que namu naa ko yal na ko yàlla yëkkati di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Al Maktoum di nuyu Touba na Yoro ñu ngi ko nuyu di nuyu Arouna Camara di nuyu Abdoul Mbaye Moussa Bass ñu ngi koy nuyu di nuyu doomu réew mi di nuyu doomu réew moom bu ñu ko nuyu nuyu nañ ñëpp Ngora Diop ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Saliou Niang di nuyu Omzo bu garga moo ñëwaat noonu Khalifa Italie ñu ngi koy nuyu di nuyu Bekay Sambu Maasu Fata Diop Boy Poulo Birane Mbeng di nuyu tamit nga xamante ne mooy Ousmane Diallo Jean Colin Sarr di nuyu Khadim Diouf ñu ngi leen nuyu di nuyu naa Aline borom jaasi ji di nuyu Mor Jaxate di nuyu Alex di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Dame Mbengue di nuyu ki nga xamante ne mooy Demba Xarañ loo Tafa Ndiaye Ibou Sagna ak premier commentaire bi di Pablo ga Gabriel. Gabriel mooy. ñoo ngi koy nuyu Gabriel moom tur la rek ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu euh, Baye Saliou ko depuis Espagne doom day di xaaloo maa ngi koy ziar doom day mbër yëpp doom day mbër mbooloo maa ngi koy béyee ko sama frère la Aliou Sarr Brésil Daouda Ngom doom day Ramdan ak Ibrahima Wade Matar Kanté gaa yëpp maa leen di bëgg. ajjuma nañu ko wax moom ajjuma la rek kay. ci àjjuma vendredi la. li règlement ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko def ndànk rek <laughs> bu mu yaa xamante rek affaire yi moom saa yi seen doosamaan jarul boo ko.